melokaanu jàngalkat alxuraan yi nga xam ne dafay aju euh, ci wàllu pas-pas mooy li muy fas ci ab xolam ndax loolu dafa am solo ndax nit ki nag pour mu baax day fekk li mu fas ci biir xolam day baax ndax ci kaw gi nii rek yomb na waaye nag xol bi lañu war a njëkk a defar te xol liñ koy defaree ginnaaw gëm yàlla mooy suuxat pas-pas ba mu nekk pas-pas bu baax a baax ci loolu lay jàngalekat bi mën a nekk nit ku baax koo xam ni day jeexital ci yeneen doomu aadama yi day mën a defar askan wi da fay a defar xalé yi nga xamni ñom la yar ci keppaaram ba bu ëllëgee bu ñu génnee foofu ci daara gi doon ay tanef yo xamni ku leen gis nawlé bi ci jitu moy xamna damay résumé rek teunk baña dugg ci arab bi kayit yi bu ñoppee su ko défé ñu ko soxla du ñak ñu am ko ngir gañé waxtu yi bi ci moy jangal kat alxuraan warna fexé gor gorlu nak am pass pass bu baax ndax tok di jangal alxuraan baax waaye léeg-léeg yow mi nga xam ne jàng nga tuuti rek amoo sax xam-xam ndax xam-xam yombul waaye jàng nga tuuti rek ba xaw amuk ràññee nga gis ay nit ñu toog di jàngale alxuraan waaye ci xuraafaat ak yéen ñi def seen bopp tax na ñoom mënuñoo jeexital ci ab xale ba xale mën a jóge ci daal ja nekk nit koo xam ne tànneef lay doon ku baax lay doon donte ñu ngay toog di jàngale alxuraan kon li war a jiitu mooy pas-pas bu baax mu set wicc lépp loo xamante ne day doon wax joo xam ne day. tàbbal nit ki ci kéeféer nga moytandiku ko bépp jëf boo xam ne tàbbal nit ki ci kéeféer nga moytandiku ndax boo demee jàng sariya day gis ay wax yoo xam ne day garaaw ay jëf yoo xam ne day garaaw nit du ko def ñu ngi ko yow ab yéeféer nga waaye boo demee ci texte da lay xamal ne lii kat ko ko wax ab yéeféer nga wala ku ko def ab yéeféer nga yooyu yëpp jàngalekatu alxuraan da ko war a jàng ba xam ko ngir mën koo teet man koo sori waaye su fekkee mooy wax waxi kéeféer baa mu koy jëf ci kanamu xale yi laa sekka ne xale yooyu muy produire bu ñu jugee foofa noonu la ñuy daal di loolu moo tax nag kon képp ku jàngale alquran dooyam ci mokkal ko dem di jàngale alquran waaye da ngay ñëw jàng lu tuuti lu néew sa mbirum diine ba nga am ak ràññee gu set wicc benn boroom xam-xam day wax ni boo góorgóorloo ba xàmmee li nga xamante ne mooy wéetal yàlla ak bokkaale nga jàpp ci wéetal yàlla bàyyi bokkaale nga xàmmee li sunna ak li bidaa jàpp ci sunna bàyyi bidaa yow fer nga indi ci diine ji kon nag faaw jàngalekat bi waxuñu day jàng ba ngéejoo ngéeju xam-xam-xam yépp waaye ne góor góorgóorlu ba jàng loo xam ne day day leeral pas-pasam loolu yaakaar naa ñu jàng laxdar yi yépp loolu la borom laxdar yi ubbee ab téeréem mukallaf mi li mu war a gën a yittewoo mooy luy wéral ak ngëm yàlla nga wéral ak ngëm yàlla nag weesuwul nga am pas-pas bu baax lépp loo xam ne xeetu bokkaale la parce que nit ki warta nekk koo xam ne day xool rek askan lu ñuy wax mu koy wax lu ñuy def ñu koy def ànd ak nit ñi pour ñu kontaan ci moom ci wàllu pas-pas bi nag mënees na koo tënk ci ñetti tomb tawxid bi nga xam ne mooy rububiya bi ci topp mooy uluhiya bi ci topp mooy asma wa sifaat rububiya waxuma la jàngalekat yi mais li gën a bari sax ci ñi nga xam ne awaam lañ fer nañ ci igi xam na ni yàlla moo sàkk yàllaay bind yàlla mooy rey yàlla mooy dekkal yàlla mooy wàcce taw bi am beneen tawxid nag boo xam ne léeg foofu la problème mu njaxas njaxas di am mooy mbirum jaamu yàlla yi daa am loo xam ne loo fonk fonk nit sa sëriñ la sa kilifa la sa lu mu doon tur woo ko mën di jox daa am loo xam ne cër suñu borom yàlla la tabaaraka wa taala jës ko jox mbindeef ak mbindeef mën di doon buntu boobu it jàngalkat def te war a am ak ràññee ba ko yóbbaale ci loo xamante ne nii bokkaale doon fekk loo xam ne borom asamaan suuf rek rek moo ko moom nga jël di ko jox keneen baa nga wax ci keneen baa nga koy askane ci keneen loolu ab jàngale war na koo moytu bi ci topp mooy tawxiidul asmaa wa sifaat suñ borom tabaaraka wa taala jëmm la joo xam ne mu mel yàlla rek ko xam ñun xamuñu ko ndax yàlla jëmmam dina mel malaaka xamu ko yonente xam xamu ko nit ku baax xamu ko waaye am na jëmm ndax moo ko waxal bopp borom boobu am na ay tur ak i melokaan tur yooyu mu tuddee boppam mu ñëw ci alxuraan wa yonente bi sax tam jàngal ñu ko dafa am luñ ca war mooy nañu ko yonente bi jàngale jàngale ko saxaaba yi noonu lañu koy fase rek waruñoo am fitu di dàq wenn tur ci turu suñu borom yi tabaraka wa taala wala di dàq wenn melokaan ci ay melokaanam ni mu ko waxee rek bu la ci aw melokaan jaaxalee nee nañu yàlla day wàcc guddi gu nekk ba ci asamaan si gën a jege yonente bi loolu la wax fase ko noonu rek nu yàlla di wàcc yow xamoo ko keneen xamu ko waaye nag bul dugg ci tawil yàlla du wàcc parce que su dee wàcc ndax moom dootu nekk ci aras day nekk fee détail yooyu si yónni da ngay sànku rek yonente bi lim ñu xamal mooy borom bi dana wàcc ba ci asamaan si gën a jigéen gëmal ni suñ borom tabaaraka wa taala day wàcc ba ci asamaan si gën a jigéen ni mu koy defee nag mënoo koo xam man mënuma koo xam lu tax ndax daa am luy jiitu loolu mooy nu xam yàlla nu mel ci jëmmam ba noppi door a xam nu mu meloo melokaan comme yàlla ni mel ci jëmmam kenn ci ñun xamu naka lay meloo melokaan yi mënoo koo xam ndax meloo ko meloo melokaan yi bànqaat la ci xam jëmm ji soo xamul jëmm yàlla ji mel doo mën xam ay melokaan yi moom la benn borom xam-xam di wax ni man asbata sifaati lillahi ala على الذي بالخلق لاقى مثلا ومن نفاها كذب النصولا يبعد من ذلك من تأولا أما الذي أثبتها علامة لاقى به جلف ما ألاما بيتي توك موي فاس فاس بو باخ نك با دو بوكال يالا باخ نا واي اندك فارلو سي جام يالا دوي رك نيا ام راغني خامي سنه خامي بدا رك خامي بوكال واي نك nga don ko farlu ci jamu yalla jàngalekat bi dafa war a gëm loolu nit ki bu mu layee rek xalqa bi mu yor tax mu jàpp ne moom wërta nekk njàmbaar ci jaamu yàlla daa war a góorgóorlu ci jaamu yàlla ñu nag mu teg boppam lu mu àttanul ay charge ci ay jaamu yàlla yoo xam duy ba tax mu sànk liggéey bi nga xam dafa tege ci kaw loosam moo xam ay nit ñoo ko ko ñoo ko ko dénk moom moo jël à charge liggéey boobu ci loosam kon war naa góor góorgóorlu ci farata yi ak li nga xam ne ay warugar la yoo xam ne suñu borom da ko teg ci kaw loos bi rawatin nag waxtu julli loolu noonu ñi nga xam ne dañoo yor ay xel leen yor war nañ cee gën a góorgóorluwaat julli jàngale bi mënta foora foora foora foor ba gën a foor waxtu julli jàngale bi mënta gën a baax ma ko ba a baax julli ndax jàngale du mooy ak jaamu yàlla lépp ab genn wàll ab xaaj ab jukki la ci jaamu yàlla ci julli farata la kon bu waxtu julli jotatee lu ñuy def lu xalxa bi dox dox nañ ko arrêté dem julli ji loolu ñu jëmbat ko ci xale yi ba ëllëg xale yi lu ñuy mën di def rek bu julli jotee ñu dagg ko dem julli ji waaye nag ñuy góorlu ñu dem ci julli ji ci jàkka yi bañ a toog ci xalxa yi dafa jullee waaye ñuy dem ci jàkkar yi ndax góor jàkka lay julli ji jigéen ma jullee ci kër waaye góor li farata ci moom nga dem ci jàkka ji jullee fa war nañoo góorgóorlu ci lépp loo xam ne lu ñu sopp la lu baax lu sax la ñu jëm góor góorgóorlu suñ kam kàttan lépp loo xam ne suñu borom tere na ko nañ koy moytandiku li ci gën a garaaw ma ñoo xam ne day gaar ab seen daara mooy jaxasoo ak i jigéen baaxul dañ koy moytandiku bul nangu mukk nekk sa bureau di sa war a jigéen jàmbur yéen ñaar dong ci biro bi loolu sariya dëgganul ko ñu koy bàyyi xel yaa xam ne yan matuwaay ngay jël waaye loolu danay faral di am te dinay andi tuuma dinañ ci dikk ci kanam su ko defee nañ koy moytandiku lépp lu yàlla tere rek loolu da ko tere li ma nañ ko sori nañ ko moytandiku man jàmbaar laa man damay góorgóorlu ci xabdul basarak yooyu yëpp amul solo fexeel ba sori ko rek ndax sori gi tax nga mucc ci jigéen mooy nga tàbb ci ba ci topp mooy di bàyyi xel suñu borom tabaraka wa taala ci lu feeñ ak lu nëbbu mooy lii ñuy def di ko jàngale muy alquran dafa am nag lu mu war a àndal gis nga yow jàngale mi séqoo ko parent d'élève dëgg la am na lu ngeen séq lu néew ndax moo yëkkati doomam jox la ma dama jàpp ne jàngalekat dafa war a gëm jàngale ba nga xam ne dafa war a gëm ni même parent yëpp bu ñu xëy xëy jël seeni doom moom muy jàng di jàngal boppam loo dunde yokk jafewut boo xëyee loo ndékkee loo añee loo reere même bu ndékki amul bu añ amee reer da mën a jaamu yàlla waaye yow jàngale woo pour parents yi mais da ngay jàngale ngir suñu borom tabaaraka wa taala bu ñu xëyoon ñoom ñëpp jël seeni doom yow nga futtiku di jàngal sa bopp di jàngal say doom ba kër ngay wujj suñu borom gëm-gëm boobu lu ñuy wax ca kaw waaye lu ñuy gëm la jàngalkat bi foofu la war toll ci gëm-gëm su ko defee la muy def du ko def pour neexal wala propagande parallèle waaye day def la nga xam ne jàpp nañ li moo dëppoo ngërëmu suñu borom jàpp nañ li mooy tax liggéey bi mën a avancer la muy def na ànd ak yaakaar fay suñ borom parce que kii def yaakaar ak fay mooy góor góorgóorlu ngir bëgg a yokk yiwam ngir bëgg gën a bëri tuyaabaam waaye nag fu mu toll di ragal mbugalu suñ borom loolu mooy tax muy teggi tànkam loolu mooy tax du teg tànkam ci lépp loo xam ne ak mooy yàlla la mooy tax fu mu toll takkoo ak tuub ak dellu suñu borom tabaaraka wa taala ab jàngalekat dafa war a xër ci lépp loo xam ni dafay sàmm ab deram dafay baaxal diineem dafay ñoŋal ab diineem lépp loo xamante ni dafay xaw yi ab deram day xaw yi suturaam dafay manquil diine da ko war a moytu ko kem kattanam waaye ba tey jàngalkat alxuraan bi it war naa gën a góor góorgóorlu gën a xam diineem yow jàng nga aslëf nga gën a góor góorgóorlu nag du ñàkk fa nga nekk ca koñ ba wala dëkk ba am ñu la tane ñoo xam ne am nga jotul mën a dem jël ci ñoom xam-xam liggéey bi tënk na la ak responsabilité ba mayu la ngay dem di jële ay des cuntukaay yi ñu mën a jàngee bëri na nga jéem góor góorgóorlu ci jàng sa diine xam ci loo mën a jaamoo yàlla jaamu boo xamante ne du tege ci ay làmbatu ak ay palamtu waaye ci basiira lay tege waaye nit ki du doyloo rek jàng alxuraan kese léeg-léeg nga gis nit koo xam ne moom ay melokaan yoo xam ne yu doy waar la yow sëñ daara wala kii askanoo ci daara buñ la nee kii jàng daara lii li nga xam ne moom lañu war a miin ci ab sëñ daara fekk li ko waral kooku daa jàng alxuraan rek alxuraan di noppi mu dem yoonam toogu fa jàng xam-xam amul ak ràññee nekk ku sàggan ci diine bu ko nekkee sax saaga wax wax ju ñaaw joo xamante ni boo ko déggee da nga def say nopp li ko waral mooy alxuraan ji kese la doyloo te alxuraan kese kese nag doyul nag faaw nag nga jàng alxuraan jëm ci boole tuuti xam boo xamante ni nag mooy tax nga mën a jëfe alxuraan jooji ba ci topp mooy nag nit ki ki jàngalee alxuraan mu xam boppam foofu tomb bu am solo la. fi ne boo organisé ab xafla rek kenn ku ne ñëw tagg waaw waaw diw nangam nangam ba mu tàmbalee liggéey bi dafa sellal yàllaa tax mu jàngal ne da nga koy dégg ci nit yëpp bul ko considéré zéro la parce que yàlla nit ñi doon koy wax te nit nag dañuy ànd ak yow ci bu neexee bu dem nga lay tagg tey jolee xarab moo tax kon maiyaar bi nattukaay bi du parent bi tagg la wala waa koñ bi tagg la déedéet mooy suñu borom nangu sa jëf dëgg la te parent d'élève da nga am lu séq ñoom rafetal sa jëflante ak ñoom waa dëkk bi waa koñ bi da ngaa am loo séq ñoom rafetal sa dëkk ñoom ñoom même boo nekkul ab seen daara waaye nag bul basé wu ci ay nit ñu lay kañ wala ñu lay tagg ba tax nga jàpp dem nga fenn fekk dama ko fenn ku nit ki dafa war a xam boppam tagg yu lay nit ñi di tagg bu ko faale bul yëg mukk sa bopp bul waru bul ndax daara ji xumb na daara ji téeméeri élève lañ junni élève lañ amul solo daara ji téeméeri fi mokkal ñaar téeméer fi mokkal amul solo mais ikhlas bi nek ci bir xol bi la yàlla di fay mais du caa gën arab bi nga xam ne moom mokkal arab bi nekk ci biir daara ji ixlaas bi nekk ci biir xol bi foofu la yàlla di fay nit ki dana yor ñetti donk di ci ndam ndami nga yor téeméeri xale ëllëg fa kanamu yàlla moo lay ëpp yu ëpp la tuyaaba mokkalal nga téeméeri nit moom musta mokkalal kenn moo la ëpp tuyaaba parce que yàlla tabaraka taala innama al amalu binniyaat loo waxul bil kasrati innama al amal binniyaat kon yii ne ji ci am solo kon fexeel ba foo toll fukki ndongo nga yor kenn mokkalagul sellalal rek bi ci topp mooy kiy jàngale alquran jubluwaayam doom ñaar yi di bëgg a ñëw jubluwaayam ci sos daara bu dee fekkam dafa sos daara jubluwaayam ci dem gu mu dem ci daara ñu jël ko mu jàngale mooy gën a tasaare alquran gën a yaatal alquran ci réew mi ak askan wi wala ci àdduna bi waaye ngir mën a fàggu yiw wu rëy bi nga xam ne suñ borom tabaaraka wa taala dig na ko ñi jàng alquran ak ñi jàngal alquran ak ñi teewe jataay alquran diglu alquran boobu mooy war ci ba ci jiitu kon loolu da lay gën a fetliwaat nekkete njàngaleem alxuraan toujours maqsad bi mooy at taabudillah azza wa jalla jaamu suñu borom waaye nekkul leneen loo xam ne pour ut ay tur lay doon pour ut ay ciwtaange lay doon pour ut ay fans lay doon wala pour ut koom-koomu àdduna loolu taxu ko jóg ñaareel mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam ñoom ñi nga xam ne ñoo tàmbale woon liggéey bi ñu ñëw di ko mottali juróom ñaareel bi mooy mu jikkawoo ay jikko yu rafet nag am comportement bu baax moytandiku nag lépp loo xam ne day wuuteeg jikko ju rafet ak comportement bu baax loolu nag moo xam daa nekk ci biir xalqa bi muy jàngalee wala bu nekkee ci biti la bokk na ci melokaan yooyu nga xam ni sëñ daara war na cee góorgóorlu mooy mu jéem a dëddu àdduna digg doomu ci àdduna dëddu àdduna nag waxuñu mooy mu doon ab dof di sol ay sagar wala mel melokaan moo xam ni koo gis da koy seexlu wala yu mel noonu loolu taxul ñuy wax mais mu nekk ko digg doomu bëgge bëgge àdduna mu limité ko bañ a nekk nit koo xam ne matériel rek moo ko ñor ndax bëgg doon ab sëñ daara boo xam ne lu bees lu ñëw nga ne faaw nga am ko da mujj yow ci boppam matériel moo lay soxlaal ak yu bees yi xew mais liggéey bi jëm kanam sax dootu la kon nag jàngalkat alxuraan ca démb ñañ xamoon tàmbalee ci salafu saale ba ci suñ jonne tey jii nii mooy ñi nga xam dañ doon woyofal si àdduna àdduna bu diggu dóomu rek ngay dund te it ki mel noonu it mooy am jotu ak tala mën a yar ay xale mais ki nga xam ne yittee mooy àdduna wallahi adim du yar kenn talu ko talu ko kon faw nga xaw a woyofal àdduna tuuti nag pour mën a am yaatu-yaatu man a jàngal xale yi mën a yar xale yi su dul loolu ña nga yar la nga def ci ñoom mooy bëgg àdduna kooku bu ëllëgee bu jugee ci daara xalaatu jàngale ci daara parce que moom ay moyenu àdduna lay xool jàpp na ne boo nekkee ci daara sax moom da ngay deltu ginnaaw ñu bëri noonu la ñu gis kon nag kiy jàngale dana am sax lu bëri loo xam ne mu ko am ci xeeti xéewal yu ko ak barke waaye du ko feeñal ba mu fes yenn fes ya ngir rek bañ loolu tarxiis loo ko bokk na ci ba tey al muhaafadatu al waqt mooy ñu sàmmanteeg suñu waxtu ak xam naka la ñuy gérer suñu sëñ daara nekkul koo xamante nii fu ñu ko woo mu wuy ji fa sëñ daara bokk ci ay mbooloo yu bëri bokk ci association yu bëri tudd mu xew nga dem ceet gu xew nga dem lu xew nga dem cant gu am nga dem mbir mu am nga dem du sotti sëñ daara loolu amul jotam yéen ñëpp xam ngeen ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu fekkee ci daara ja ngay jàngalee fa nga dëkk di fa fanaan yëg nga ni liggéey bi 24 heures sur 24 heures la wala déet sëñ moo doo tëdd ba guddi min wala une heure ñu la am na xale boppam di métti am na xale buy jooy da jub kon kay liggéey bi amul fu mu kon nag ki nga xamante ne day jàngale alxuraan dafa war a sàmm waxtoom am na yoo xam ne moo koo ñàkk wuy ji ndax sariya moo la ko yebal moo la jox ndigal farata la waaye am na yoo xam ne boo ko toppee nag dootoo toog ci daara ji te boo ci daara ji daara ji dootul loolu sëñ a faaw mu bàyyi ko xel am ci fulla dëgg la nag nit ñi daañu la mere moom du dem ci lenn doon dem ci nangam ak nangam fekk du loolu da war a am programme bu leer ci la ngay dem ak la nga du dem lu fulla lu fayda lu farata lu mënta ñàkk waaye loo xamante ni dajaloo yàq waxtu rek loolu waru cee dem dafa am sama benn xarit bu baax di sama wëllëre ñu ànd nekk ay jàngalkat alxuraan dafa am ci bërëb bu mu dem ci benn bërëb dajafa ay nit ñun ko yow de yow ak du nga dem ci nit ñi ñu ko yow de yow diw du ngeen dem ci nit ñi mun ko ñan ñooy nit ñi ñan ñooy nit ñi parce que jàngal ko doxaan ñoom li bëgg mooy ka nga xam ne moom yorul benn programme fu ñu ko xëy woo mu dem wuy ji noonu la bëgg nga mën koy jàngal ko doxaan te loolu mënoo parce responsabilité bi nga yor ci jàngal xale yi ci yar xale yi mayu la bokk na ci ba tey jàngalkat awxaan lu mu mën a dimbalee nit ñi na ko dimbalee nit ñi ndax moom royukaay la moo xam dimbal googu ci xam yàlla jox la moo xam ci alxuraan ji la moo xam ci moyen nu adduna mu am la na dimbali doomu aadama yi kem kàttanam ndimbal googu nag jubluwuñ ci mukk nag nga gàddu loo xam ne doo ko àttan ba mu dem ba mujj sax gàllankoor liggéey bi loolu waxuñu ko waaye sa kem kàttan sa kem man-man dimbali doomu aadama yi bokk na ci ba tey jàngalekat bi war naa sori lépp loo xamante ne yu suufee la lu doy loo xam ne bu ko defee ci pénc mi wala ci mbedd mi wala mu wax ko nit ñi dégg ko dootuñu ko naw te ab daram day yàq yàqu ab sagam day لب لو خمدي عندي توما مصرك ذكر نين فمن عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به بعد في لو خمدي ولا نين توما لناك سبوبا بول يد كان كل سبب كل سن دار ورنا كم لكن خمدي كل أب سن دار دف نك دنا كده مجيكو يو سن دار أمانة بوك دف بولجيك نين نب خمدي نكو باخ أم لو خمدي بوك نيد دفن فلكن دو دار waye bu ko señ daal defé ñepp siiwul yu yépp nak ñukoy moy luk suñu kër bi ci topp mooy sëñ daara bi nekk koo xam ne ku am dignité la ku am personnalité ku am ak bañ la sëñ daara du ñu wax ne day réeréel du yëkkati ko déedéet loolu alxuraan da ko tere du melokaanu jullit sax balaa muy balaa ngay àgg sëñ daara mais nag warut nekk ku xeebu ku doyee di koo xamante ne nii dafay tàllal ab loxoom toujours ci doomu aadama yi di sàkk ndimbal ndax nit ñi buñ la dimbalee rek boo moytuwul daal lay xeeb ki nga xam ne nag moo bëgg a jàppale daara. ñëw dimbal la ci daara ji te wóor la la ni wala am nga njort rafet ni kii yàq daara tax koo jóg nga jël walla charte yam lay tegal dàkkontewul ak lay doxal daara ji ak mustaqbalu daara ji nga jël ko waaye nag bul xaritoo parent ni def mukk ba ne ko may ma portable wala may ma nàngam déedéet ab sëñ daara loolu bu cëram ñaan du mbirum sëñ daara dëgg la mën ngaa gis sa moroom sëñ daara mu nekk ci jafe-jafe nga ñëw ci sëñ wilaan ni ko ah diw de fekk sëñ wilaan mi ku yàlla jox sa wërsëgu àdduna mi jàppale jaamu yàlla yi nga ñëw ni ko ah sëñ wilaan mi de wala xam naa daara joo xam ne mu ngi ci ay jafe-jafe jàpp naa de man dafaa jaamoo yàlla tegtal ko foofu mais yow sa jëmmi bopp bu ko def bu mu ndax nit ñi boo leen laajee ñu xamal la te duñ faj say soxla ba ñu xamal la faj say soxla ba noppi nag bu ëllëgee ñu weer la bu du woon ak man barki démb rek la fi ñëwoon di ut nangam loolu nañ koy moytandiku nañu góorgóorlu suñ kem kartan di tadarro ila allah azza wa jalla mu defal ñu sutura sëñ daara soxlawul alal ju bari sutura rek la soxla xam nga lay sutura moom xëy na am na lu mu dundee moom ndongo yi ba mën a xëy dem jàngale loolu rek la soxla sëñ daara ndax bu fekkoon sëñ daara daa bëgg alal kon da ci daara yu dem commerce ji wala mu dem tukki uti xaalis daara du utukaayu xaalis daara du utukaayu xaalis du magasin du ab bitik jaamukaay yàlla lu ñëw nag yàlla wamat ay doomu aadama nga andi nga xam ne lii kat teraanga ju ju la yàlla defal fii ci àdduna la waaye yow taxulaa jug sax ndax ba fekkonte ni ut kese ndax kenn ku ne xam ne ñuy jàngale alxuraan ay borom bopp lañ xam nañ utukaayu alal yi xam nañ yooni tukki mën nañoo jaxasoo ak ay commerçant def commerce ñu bàyyi ko fa soo bàyyee nag ba noppi nag da góorgóor nag doylu kon nit ki war naa nekk xamante ni lépp luy indi ñu koy toroxal wala ñu koy xeeb mi ëpp si daara mi moytu moytu ni na ci aju ci wàllu jikko yi nag yi nga xam ne war na koo bàyyi xel bu nekkee ci biir xalqa bi te loolu sax la ñu waroon a jiital ndax moo war a jiitu lépp mooy jubluwaayam na nekk jaamu yàlla tabaraka wa taala njàngale meeg yëngatu yi mu yëngatu ci xalqa bi yépp na jàpp ni ak jaamu yàlla la yéegi mi yee xale yi sax njël ñuy jàng na jàpp ni loolu ak jaamu yàlla la su ko defee yëngatoom subaa ngoon bu dégg bëccëg lépp nekk ak jaamu yàlla nekk aw yiw yu ñu koy versé ci compte bancaire alaxira fii ci àdduna nekk faqiir boo xamante ne sax bu ndekkee du añ bu añaa du reer na ko dañ ñu ëppale àdduna fii waaye mom compte bancaire Allah àllaaxiraam lay bàyyi xel loolu yëg-yëg boobu ko sëñ daara amoon rek liggéey bi day yomb ci moom te xolam day féex waaye bu ajoo ci àdduna wékku ci àdduna ba mu ëpp rek dana ko indil jafe-jafe bokk na ci yooyu mooy ki jàngale alxuraan bu mu naw effort am ak ay jéegoom yi mu def wala ay résultats yoo xamante amna am na ko ci njàngale mi moo xam koy jàngale alxuraan wala xam-xam la waaye fu mu toll rek néeg ni moom jaam bu la bu lottu la lii mu def lu lu néew la par rapport ak li mu def ak li ko war su ko def fi mu toll ñaan suñu borom manqué manqué bu am ci liggéey bi na ko suñ borom jéggal ak rëcc rëcc te suñ borom dooleel ko dafa ko tawfiix ba mu mën a taxawee liggéey bi ci anam gi nga xam ni moom la ko suñ borom di gërëme mu mën a jariñ doomu aadama yi fii ci àdduna boo liggéey suñ borom fay ko àddina bokk na ci yooyu ba tey jàngalekat bi na mooy na góorgóorlu ci rafetal ay jikkoom moytandiku di wax xale yi wax ju ñagas wala ju ñaaw wala sax di tàbbi ci mer moo xam ne di tàqali ko sagoom di moytandiku lépp luy indi mer sumer mer amee mu fexe maîtriser bopam bokku na ci ba bu nekké ci xalqa bi tok toogeenu koo xam ne ku wéegu lay doon ku sàmm lay doon ku amuk dal lay doon ku torox lay doon ndax loolu dafay jeexital ci xale ñu fonku kitabullah azza wa jal waaye su fekke bo nekké ci xalqa bi sànni fi ab tànk sànni fi ab tànk sonu fi ak fi tànk lonku fële wàcce fële xale yi ba legge non lañu mel duñ jox alxuraan ben gëdd wa yow ci si jëmmi bopp yow jàngkat ya war am war mo jox alxuraan jo xamni xale yi ngay jàngal dañuy yëg ni alxuraan ji daa am worma daa am worma ndax toujours xale yi dañuy xippi seen i bët gisuñu seen baay gisuñu seen yaay yow la ñu gis ci yow la ñuy copier yow la ñu roy yaakaar na ñëpp xam nañu kenn ku nekk nga jàngalee Mouhamad Alioune Guèye ni muy takk ay weeram xale yaa ngi koy xool ñu ngi koy toppandoo bu génnee ni muy solo ay dàllam buy dox sax ba ñu nekkee Fass gisoon naa xale yoo xam ne jàngalekat yëpp ku nekk booy dem jàkka ja ni ngay doxee dañ la koy toppandoo kon xale yi bàyyi wuñu dara kon nag war ngaa fexe ba la ñuy gis yow di ko copier di ko roy mu nekk lu baax ndax bu ëllëgee bu ñu yóbboo lu baax loola yow nga am ci ak tuyaaba su fekkee xalqa bi dafa nekk ci biir jàkka jaar ci jàngalekat bi bu dikkee ci jàkka ji muy ànd ak te bu ñëwee balaa muy toog mu julli ñaari ràkka su ko fee ci loolu. bokk na ci yi nga xam ne jikko yi nga xam ne day aju nag ci wàllu eh, melokaanu jàngal alxuraan ci wàllu sañseem ak soloom ak toppatoo boppam bàyyi xel boppam. bi ci jiitu mooy day jàngal alxuraan kon aw làmmeñam war naa góorgóorlu fexe mu doon làmmeñ wu set mu nekk koo xam ne buy jàngal xale di leen sax day yëkkati doom ba nga xam ne dañuy dégg lim leen di wax di leen sax ndax xale yu bari yoo xam ne dañuy am problème mu tar alxuraan wala bu ñuy tari seen tari am yàq yu bari fekk jàngalekat bi moom la làmmeñam setul wala buy sawaata du wax bu baax xale yi duñ ko dégg te ñi mun koo wax lu mu wax su fekkee ñoom nañ ko jàpp rek lañ war naa góorgóorlu ci bépp problème bu mu am ci wàllu maxaarijul xuruuf comme ni ñu ko doon waxee léegi ak sifaatul xuruuf mu gis beneen moromu sëñ daaraam bu ko ci tane mu dem mu dimbali ko ci ndax nag alkamaalullaahi waxdahu mat moom yàlla rek koy def nit ki dafa am kenn ku ne lu la yàlla séddee amum séddee keneen bu ñu àndee ñu ñëpp dañuy mottalante ma jël ci sëriñ moom sëñ moo jël ci man waaye amul kenn koo xam ne da ngay am lépp ba mat sëkk bokk na ci yooyu ba tey mu góorgóorlu ci wàllu soliinam soliinam seen daara bu mu yànji ba mu ëpp bu mu xumb ba mu ëpp waxuñu bu mu solee yu baaxul de wala mu sol ay sagar wala yu xotti ko yoo xam ne tey bu nit ñëwoon ni tëll la day jàpp ni kii daa tàqali ko sabam nekk ko digg doomu na da ngay seexlu yow xale yi doo doo toog ak xale yi doo bokk ak ñoom jotaay te da a toog ñu lay wër jege la comme bu ñu nekkoon seen kër baay ni ñuy a def na nooy civilisé ba mu ëpp nag fonk ak col ba mu ëpp sax da ngay lu xale yi do bëgg ñu jigeela la bokk na ci batay di gor gorlu ci khisalul fitra bok ndax bokk na ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam di lelle ay wex amna na seen daara yo xam suñu ñi nga xam ni classe Abdou Khadir gi ñi nga xam mom euh ba léegi ay sabaab lañ léegi ko xamanteni day bàyyi wewi ba mu gudd wala wewi lu erreur bu mag la yaa mu khalafa sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa man nga cee gañ ab xale sax worut man ngay doon ab xale def nii rek fekk mbéj ko doon bëgg lii laal bëtam mu yàq lay wax waaye waa juróom yow si jëm bopp mën a laa gaañ bokk na ci di wàññi ay naam ndax loolu yonent bi saasam moo ko santaane mu bokk ci melokaanu jullit bokk na ci bàyyi sikkim seen daara yu bëri moom dañuy lell rek waaye bàyyi sikkim du caagin bokk ci menn mbooloo wala benn kuréel ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa la kon ki nga xam ne ab jàngalekat alxuraan la sikkim bi da ko war a bàyyi ndax loolu la yonent bi kii nga toog place am ne da ngay jàngale lan doon jàngale loolu la santaane bokk na ci ba tey sàmmonteg yére yi nga xam ni moom la sharia joxe ndigal ci jullit war koo sol ab jullit amul sañ-sañu lu mu jot sol lu ko neex sol dafa am lu mu sañ a sol ak lu mu sañ yére yu siiw yére yu xumba xumb yu xàññaaral ba mu ëpp ab jullit waru koo sol bu dee góor it war naa góorgóorlu yére yi muy sol mu nekk yére yoo xam ne dana sàng awraam nekk yére yoo xam ne yu weggu lay doon nekk yére yoo xamante ni ko dina xam ne kii mas'uul la responsable la war nay góorgóorlu it ci di peñe kawaram balaa muy dugg ci xalqa bi waaye nag waxuñu dem ba ci xalqa ba yor sa peñe foo tollu di daal kon yaa ngi jàngal xale yi foo te yëguloo ko dana ñëw ci kanam tuuti ci al istidaadu az zamani ak istidaadu jasadi ak nafsi balaa ngay dem ci xalqa ba dangaa bëgg a peñewu peñewu nga boo demee ci xalqa bi liggéey ba rek ngay def waaw nag su fekkee dangaa ngaa nekk ci xalqa bi eh, juróom minute yu ne nga génnee peñe gi jekkal sikkim bi wala sax nga am jot di génne ay seetu di xool xale dañu xam ni kii moom wayit <laughs> dañu xam ne sëñ bi moom wayit waaw sëñ bi moom wayit kon bu ñu way bu kenn du ñu wax dara loolu yëpp sëñ da koy da koy da koy muraaxama dafa am loo xam ne boo ko dee def yaa ngi jàngal xale yi ak waye ni te yëguloo ko moo tax lépp loo xam ne bu ko xale bi koy tere xam xale bu jàng yaa am ñu seetu yow ngay jàng yàgg di seetu tax doo seetu sa néeg balaa ngay génn xale bi buy jàng ba mu yàgg muy peñew do peñew baax na mais da nga koy tere parce que loolu fawda la ci biir liggéey bi loolu lépp sëñ daara da koy sóoraale bokk na ci ba tey mu góorgóorlu ci yëre yi muy sol mu nekk yëre yu set yu set ci sharia set ci aada waaye mu sol yëre yoo xam ne comme ni mu ko waxoon yëre yu wegu lay doon yëre yi masul lay doon balaa muy dugg ci xalqa bi bu fekkee yitti woon a socc mu socc bu amee gëtt mu laal ko nga xam ne bu duggee ci biir xalq bi daal lu mënta ñàkk lay def waaye fekk la mu waroon def lépp def na ko lii waroon nag ñu bëri dem ba ci xalq ba di socc wala di parfum wala yor ab peñe di peñe wala yu ni da fekk na mu war a waaje waajewu te fekk seen daara bi war a waaj ci anam yi di bëgg a ñëw bokk na ci yooyu ba tey eh, yi nga xam dafa aju ci wàllu métier mi mu métier woo foofu mooy tomb bi mujj insha allah métier mi nga xam ne moom lay jonjool nag subaa ngoon wala guddeeg bëccëg te mooy jàngale alquran bi ci jiitu mooy fexe mën a jàng alxuraan jàng mu wér du sart ni faaw nit ki day mokkal alxuraan door koo jàngale dëgg la nag ki mokkal ci ginnaaw bu mu amee formation ci jàngale laa sakka ni bokkut ak nga xam ne moom mokkalul alxuraan waaye nag du sart ni faaw nit ki mokkal door a mën a jàngal alxuraan li ci am solo mooy na fexe ba moom li muy jàngale ci alxuraan mën koo jàng jàng mu set buy sa xale yi sa leen sa bu set sa leen alxuraan ju wér moo xam benn moo xam ëpp na benn riwaaya moo xam benn xiraa la man moo xam ëpp na benn xiraa mais na fexe daal ba riwaay bi mu jàngalee di jokkaloog nga xam ne ñoo ko ëpp ci wàllu alquran ji muy jàngale mu jéem a dem jàng ñoom même bu mënta jàng yeneen xeeti njàngin yu bëri ndax loolu du farata mu fexe ba riwaaya bi muy jàngale moom mu xam ko te xam ko xameñ wér bokk na ci ba tey kii jàngale alquran na nekk koo xam ni moom ci boppam moo am bëgg-bëggu jàngale alquran moom moo yëg ni moom am na tànneefu jàng alxuraan gis na métier yëpp gis na yëngatu yëpp gis na xëy yi gis na gont yi waaye mi ko ci gënal mooy jàngal jàngale alxuraan kii nag mooy am na jaax ci liggéeyam waaye ki nga xam ni dañ ko cee forcé da cee mënta ñàkk a nekk daa ñàkk pexe fëgg na buntu yëpp mu tëju du noonu de alxuraan dalay lay gën a lépp nga tànn ko jàngale ko ngir yàlla tabaaraka wa waaye ba tey bokk na ci kii jàngale ko war na am. benn caractère boo xam ni dana mën a gérer xalqa mën a orienté xale yi day gis ab jàngalekat alxuraan boo xam ni day toog ci biir xalqa mu ngi jàkkaarloo xale yi xale yaa ngi fo kooka war nañ koo defaraat formation ab jàngalekat du caagin rek boo sawee xale yi pare nga ci nekk sa leneen xale yi di fo xale yi di dàqi xale yi di bëri ak lekk ci biir xalqa bi xalqa du bëriwukaay du foowukaay du lekkukaay loola am na yeneen waxtu ñu ko jagleel waaye su fekkee day ci biir xalqa mënta daptu xale yi kooku war nañ ko defal beneen formation te loolu nag dara tanewu ci tool foo xam da ngay sëpp xale yi tiim leen say bët di tege ci ñoom su loolu amul rek xale yi ci fawda la di nekk léeg-léeg tari jot duñ mokkal fekk la ko waral mooy xale yi bañ leen sawee bañ mën bind yi ba noppi dañ leen a taxawut ndax xale yi faaw ñu saleen bind yi ba mu baax ñu taxawu leen mooy tax bu waxtu wa jotee ñu tari te tari ba ñu war a tari ñu tari su benn boo manqué ci yooyu nag njàngam toujours day am ay rëq-rëq ak i sooxi sooxi bokk na ci ba tey jàngalekat war na am yewute goo xam ne ak nettukaay yoo xam ne ci lay xame ñi muy jàngal ñooy ñan xale yu neex xel mu xam leen xale yi naqari xel mu xam leen xale yu jubadi mu xam leen xale yu jub mu xam leen xale yi nga xamante ne dañoo gaaw a tiit ak xale yi nga xam ne dañoo am fit doon ay dalankaa mu xàmmee leen kenn ku nekk ak naka la jëflanteeg moom bokk na ci ba tey mu mën a jàngale alxuraan man koo sawaate sawaate bu baax man koo jàng-jàng mu wér bokk na ci ba tey ñaari tomb yi may mujjee mooy jàngalekat bi nag mu góor góorgóorlu nag respecté heure yi xalqa bi foofu loolu problème la jàngalekat bi 9h lañu war a dugg day toog ba 9 quinze 15 wala 9h30 muy door a dugg si te kat da ngaa waxante àq dara da ngaa ñëw ñu jël la ci daara di la jàngale loolu ñu la 9h la ñuy dugg ba une heure wala 9h ba midi yow kat bu dugg jotee 9 doo dugg 9h15 dugg wala 9h30. waye minimum ben minute du tegal nga wàcc la leen concert mooy midi mooy ngay wàcc lolou day am limay wax ni du ay lépp ñor dara daara xam nañ te ay waqaay ala nit ko xamanteni 9h lañ ko wax lañu ñu dugg ba 1h ñu wàcc 9h15 lay dugg ci ci bu 9h ba 9h30 soko ko man na lay lu ko neex waye nak bis bo xamanteni mana 1h tegal na ñaari minute fekk ko ci xalqa bu amut est-ce que loolu ak maandu yaay xwa est-ce que loolu ak maandu la dara bi def lolou lépp li ko waral moy

ñun suñ bëgg tuyaaba des na war na ñoo gën a góorgóorluwaat waxtu wi nañ ci bàyyi xel nit ki war a te fekk tardé googu amul mu bari shar'i wala udr tardé na ñaari façon la mooy heure ba nga war a dugg duggoo ko mooy dugg nañu yàgg nga door a ñëw wala ay minute jiitu na la raw na la wala heure ba ñu war a wàcc doo ko fa xaar am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee heure la ñuy wàcc 45 buub nañ seen i bagage ba dem. beneen taaxur bi nag moo gën a garaaw mooy tardé boo xam ne doo jaar ci xalqa ba moom dangay xëy bis bi yépp jaaroo ci xalqa bi wala suba gi xëyuloo ngoon gi xëyuloo laa chakan loolu bu dee ngant la ngant moom day del nit ki ba ci jaamu yàlla yi nga xam ne moo gën a farata ni ko julleeg ju ne demee ak koor waaye nag def ko defin woo xam ne tegewul ci benn ngant loolu mooy problème bi porté malade damaa am aw xew xew yi am na ci yoo xam ne jëru te dem am na la ca mën a wuutu am na ci yoo xam ne jërta dem am na ñu la ci mën a wuutu te xew yooyu du mus a jeex ba mukk kon am na ci yoo xam ne moo gën a doon farata moo gën a doon fulla nga dem ci ya nga xam du farata fulla nga bàyyi buñ la mere fexeel ba yàlla kontaan ci yow gërëm la rek ndax nag nit ñi moom seen ngërme mu ngi yem fii ci àdduna bis ba duggee si biir bàmmeel moom cantum nit ñaa ngërëmu ñu du la jariñ dara da la jariñ foofa mooy ngërëmu suñu borom tabaraka wa taala kon loolu nu bàyyiwaat ko xel gën cee former suñu bopp foofu nag man damay tàmbalee ci ñun ñi nga xam ni léeg-léeg ñuy jiite ay daara ñu ni kii mooy mudiru daara ji wala ñun ñi ñu ni kii mooy sëñ daara bi léeg ki nga xam ni mooy mudir bi moom dëgg la ut na ay nit ñu koy jàppale ci liggéey bi wax naa ñoom ci ay waxtu expliqué na liggéey ba mu leer seen bopp mu ngay taaba mu ngay mu taaba liggéey bi waaye teewul nag moom du jaar ci xalqee la fay nekk xamu ko te ñu ci bari ñun ay gone lañ yoo xam ni seeni at bëreegul abdourahman asulami nee na juróom ñaar fukki la tok ci xalqa di jàngale ñi ni ñen fukki ñi ni fanweeri at ñun gën jaabari ku jangale fukki japp nga ne léegi xalaas sa talibé yi magi ngay daal jox liggéey bi sa doomi ngeen laan gor gor leen ci liggéey bi yow da nga daal di tok door a def dara te demagoo fenn juróom fukki sax amaguloo ko kon nak yoy nañ koy wat xel ñaareel bi mooy dugg ci xalqa bi te moom mooy tomb bu mujj muy ñew ci xalqa bi waajal boppam war waajal ci li ñu ko léegi waajal boppam ci ak solam ak yi muy woo yépp balaa muy dem ci xalqa bi jaaruwul boo nekkee ci xalqa bi ñaari minute ñetti minute nga jug dem dem dugg ñëwaat génnaat même ci wàllu portaabal yi problème bu mag la jàngalekat bi fu mu toll mu ngi wuy téléphone ci biir xalqa bi jàngale fu mu toll mu ngi mu taabaa whatsapp ci biir téléphone ci ci biir xalqa bi mais est-ce liggéey boobu dana dox hmm? du dox kon nag war naa ut programme waxuñu kenn du wuy téléphone du waaye nag war naa am programme boo xam ni nit ñi day dem ba xam ko ci dañ ci dem ba xam ko ci mu ut waxtu yoo xam ne ci lay euh, jëfandikoo téléphone yi ci lay jëfandikoo whatsapp su dul loolu waxtoom day dem bu fekkee message bu ñu la yónnee ci whatsapp nga xool ko lu ñu bind nga liir ko kan ngay jàngale lan ngay def ci xalqa bi daanaka yow sa toogoon sa biir néeg daanaka moo tax ne woon ñëw ci biir xalqa war naa waajit ci wàllu waxtu mooy 9 heures la war a dugg ci biir daara ji nga dëkk góor góorgóorlu ne la fekk la ci xalqa bi dëkk loo ci biir daara ji da am fooy jógee di ñëw ci biir daara ji nga góorgóorlu rek la sa montre ba nga xam ni yow da mën a bàyyi ko sa kër yaa xam da nga def wala da ngay war ba àgg ci daara ji te fekk waxtu bi war a dugg jotagul hmm? ci loolu yow ngay yar sa bopp ci respecté ay rendez-vous waaye nag ci ngay yare xale yi ngay yar ba bu ëllëgee ñoom ñu nekk ñoo xam ne yaxtarimuuna al-mawaa'iid waaye su xale yi gisee ni moom de saa su ko neexee lay ñëw saa yu ko neexee lay dem ñoom ci loolu lañ seen bopp moo taxit saa yoo fi nekkee lañuy ñuy doxal saa yoo génnee ñu nekk ci leneen bu fekkee it istixdaadul ilmi mooy ki jàngale bu fekkee dafa yor ab xalqa boo xam ne daal darsu tajwid boo xam ne da ko war di joxe war nay waajal darsu boobu balaa ba ñëw ci xalqa moo gën na nga di jox xala xale yi darsu boo xam ne yow leerul ci yow wala xëy na nga ko war a préparé préparé woo ko noonu moom ay njuumte ay erreur yoo xam ne xale dañ koy kastu bu ëllëgee day nekk xeebeel ci yow ci xale yi ñu la koy jëwee kon jàngalekat daal ci boppam dafa waajal war a waajal boppam ci léppam lii ñu doon wax nag tekkiwul ni jàngal ko day mat sëkk doon am malaaka déedéet waaye moom mu ngi ay jikko yu baax yoo xam ne ku dib ab jullit da koy jikkowoo mais am na yeneen yoo xam ne daf koy soxlawoo ngir métier mi muy métier woo ginnaaw bi mu doonee ab jullit yooyu mu jéem góor góorgóorlu def effort ndànk-ndànk di jéem a corriger boppam ba keroog muy àgg ca niveau ba nga xam ne moo gën a kawe fu doomu aadama mën a àgg ci mat hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين وربنا الله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم